قد قال موسى خادم القديم لمن حوى تخدم القديم قد قال موسى خادم القديم لمن حوى تخدم القديم يا سائلي عن سبب تقسيم يوم خروج شيخنا القديم من داري بمك باري باسم خالق البرايا باري خرجت يوم السبت الرابع عسل لخدمة المختار في سهر زمن taarix ba mooy junni ki ñetti téeméer ak fukki at ak ñett lim bi ngeen ma dégloo tay ji ma dellu yeete ndax ñi nelaw la seen xel yi dellu seeti su ngeen ma dégloo tay ji ma dellu yeete ndax seen xel yi dellu seeti mbir day laaji ko xam lu mu xamul laaj leen mbiram ki leen lu kenn amul ku réere mbir day laaji ka xam lu mu xamul laaj leen mbiram ki leen amal lu kenn amul gumbay njàccar laa ngi tee ngeen wedam man ko xamul laajul ko xam xaw mawlayam ku toppatu yàlla na toppi waayam baalu ko dal mum ko xulfulaayam ku toppatu yàlla na toppi waayam lu ko dal bu mu ko xul fu laayam nan jima topp yàlla te toppi ndigalam te jima daw saytaane xamme ndugalam te jima roy roylu rajaalu laayi te jima roylu kullu jaanu laayi alxayru yi maakum muxtaaru abilazim namunukum taqan xarjaakum mina ilaayi nuur Cheikh Bamba jagoog كلان سندنور قد جاكم من الإله النور شيخ بامبا جوجوك كلان سندنور بامبا جاك نوني الجحران البري البحر والنظر سيطاني بانيق عجبكم الدنيا كلن فين الدان نون يبنيا بامبا جاك نون جاد النسيم يبوبين شريكا كنا بالنفس عطلت في الباري لوح شيطانا كبكبون غير الورى الأوتار نوبال بانغاز بخير تجين يروح نكسين كروك فيربان عمن حاجر في سبيل الله بوت معك يبون فودنا الله دبلو الموحلة لغار المقال nga xami Seex demam ga taarix ba ma jëhi sosi mooy at ma leer li ma sëñ basi mbég yàlla defaloon ki dëng defal ko Ibrahima ba yàlla bu me faal tamaski ak tam xarit may na ko gaay Mbàkke ba yàlla bu me faal tamaski ak pam xarit may na ko gaay mbàkk yu xidmatil xadimi lil maqdumi mu ni fàllaay na taxsimi la daam sar ca mbooti yoonu géej ga laay bëggay ngeen xam ni Cheikh Bambay géej ga la daam sar ca mbooti yoonu géej ga laay bëggay ngeen xam ni Cheikh Bambay géej ga soo ko xamul soo ko gëmul yëral ja saaw sakoor soo sogo xamul yëral ji sa sakun jiwaabi abdullahi loolu soo ko xamul yar ji saaw sakoor jawaabi abdullahi loolu moo woon ne kono dem gi walaf nasaraan te kon bilaay ñëpp dem niiraanu ne dogon kono dem gi walaf nasaraan te kon bilaay dem niiraanu bismillahi rahmaani rahiim mbooleem murid yi ma yee ci mbiri Cheikh Anta bu leen nelaw yeen mbooleem murid yi déglu leen mayee leen cibri Cheikh Anta bu leen nelaw yeen mbooleem murid yi déglu leen mayee leen cibri Cheikh Anta bu leen nelaw yeen li may nelaw nelaw du teema yeete li may gëlëm gëlëm du teema waate amaana kuy nelaw nelaw ngir ay su defee yeete dootu yàndoor bu leen di fàtte yàlla ak dogal ya ak atte ya sañ-sañ ya ak bugal ya karango ànd ak coobareem ci la ñuy jëm loo gis mu xew mi ndee ma nu sañ calam dogal bu am day la kooki xew-xew ngir lu gisul war naa la kooki sew-sew te yàlla doo ko gis ba xam la mi def loo xeji xeji buur ba làq lay ku gën a xeji gis na toom yaa ku ñi nga fii ba gën a gis yaa te yàlla gat xay ba lay musiba si maqaama te mënu jëf nattu lañ koy xayma laa wañu xarba ci maqaama te mënu ko jëf nattu lañ koy xayma te bala laa woon ba jox la miya nga mu ñanam ba aw ca tànki Maryam la nawla lakum li saabilina ahasiba li kaasibina moom lañ waxoon yónnan ya ak labdaal yaak ñu yaak lawtaal yam moom lañ waxoon ya ak labdaal yaak axub yaak wàllu yaak lawtaal yaak قطب الأولياء رضي عنه الله والمكين وفي حديث إن حب الله عبيدهم بنكمة تلاه وعيس ما يستبي واتباه وعيس ما يتلا استفاه أهل البراء صر لهم ديوان أهل البلاء ليس لهم ميزان وليس ينصر لهم ديوان لقل الموحلة لا دلون ينن يا أقصاب يا wàllu yaa xejjam yaa déglul ma wax la la daloon yoneen ya ak saaba ya wàllu yaa xejjam yaa seetal borom muñu gañu na ayuba sax yaa ko daa xëccu di wat ni ko baa te teew ku sant di wax alxamdu moo tax ba yàlla naa ko ni'mal abdu setal ma daat ni yaat ma daanu jibteen ñu boole ko ki gaynde yee si seen gaynde ya fam di mar yaramam rek defar ñu far ko jàngal saar wa rab ya waare yaxya yaxya yaxya yaxya tomba dootulan ci Sénégal noonu yaa ko jàpp ar jëmam ja yaari gaal bi ba wax yàlla yàbbal ji niiru li ko bu ne nuuru Mansuur سالم إبراهيم na خليلا قليما نونم يجن نانكم muy bay feelo ba yàlla rendiloo ko ismaila ñu delu taalal ko ba nag nam roos def ko ca biir yàlla seela solom san seetal yonen bañu laayanku ba gummana ay at di palam tunne ba seetal yonen bañu naa Yankuba du mën a ayat di palam tunne ba dada su mboy on gëna ba ba sanku ba fam njëkk so aya lawam su xalame musufa ak mbokkam ya dalo xalam kasum ba ak tuumaam ya dooto ragal kurul ilaay naasi doo ñu xeeti ngir pexem an naasi na dum julil ko sànni doj tama day jibaran noon yaa ko génne makka ngir bañ diine bisni rabbi la dem madina fanaan na cim xundi fanaan ci ay doj ana ka Babakar lu nekk nuy doj am nañ ko xabal ko ci biiru sarwaan jox nañ ko tooke tew ku doy kiimaan keroog la yàlla wàcc saaru naasin ak falaqi moo ca ko xayru keroog la yàlla wàcc saaru naasin ak falaqi mocce ko naasi bisub keroog la yàlla daane kiifam yëkkati islam loolu doy na tiital dunya ana de moodi sinnil mumini wajanatul kaamil mi ñaar duñ mani dogal bu am yàlla ko def te lii xëy di xew soo gërëmul gërëm naa sel saaba ya gannaaw yonin ba wareesu ko wax ku baatin ba am na cëm yu xam ni lamañ du am na cëm yu xam ni def na ko misaal wajaba lim saaku ama sajara waaye dana fi musal mina dara ndax ku xamul yaaram ñu doon ko waar كمان عرب نسيت نور الأبصار قال رسول الله الصديق لندن عثمان دلو جام فاروق رأي نانكو تومال نانكو جاب مروان مزوجمي delu leen yéen gaawaan gaaw nañu kër ga arbaina yawman wati satan lii doy na fecc war ma kenn mës na gis abdullahi dañ ko dog bomba woon yowmal jamal toj nan bëtub càmmoñ ba bis ba ca des ñu toj bëtub ba muhammadun ababakar siddiqu rayin wajar na waa ju nekk ñuuxu rey nañu ko sànni ko cib santaare taxan jamal boole ko imaare alun ay dara ma doon jàmbar abul huseyni wal hasan yaakaar jaan bañam ya rey nañ ko cerew kum fa ngir weddi yàlla gaañora ko boofa fa mi julee fajar layim na man jam boccib gu bar bettu ko daldi koy jam seetal huseynu yawma asura lañu ko rey cerewi karbala seetal huseynu yawma asura lañu ko rey cerewi karbala nga yor baba gannaaw ba dee làmmañ wana sayaalamul lasina dan wa rahmatan